nataal fukk ak ñaar di at yu bari weesoo yàlla yónni yeesu kirist doomu yàlla ndax mu doon musalkatu àdduna si te nii la loolu amee yàlla yónnee na malaaka mu jóge asamaan ci benn jànq bu tudd maryaama ki ñu yónni te mu bawoo asamaan ne maryaama bul am looy tiit maryaama dinga ëmb te dinga jur doom ju góor bi ngay tuddee yéesu ku màgg lay doon te dinañ ko tudde doomu yàlla aji kawe ji boobu maryaama séyagul woon ak jëkkëram yusufa mu laaj ak xelam loolu naka la mën a amee ndaxte liiri àddina yépp am na ñu baay ak ndey ki yàlla yónni ne maryaama yéesu du am baay ci kaw suuf yéesoo ngi nekk ba faw mooy yàlla ki yàlla yónni ne maryaama dina am kéemaan bi xew ci sa yaram mbir mu kéemaane boobu ci yàlla lay jóge te mooy xel mu sell mi xelu yàlla bi dina def kéemaan ci yaramu maryaama maryaama xamul woon lépp li ko malaaka boobu doon wax waaye nangu woon na lépp ki yàlla yónni woon moom it mu dem ca yusufa mi doon bëgg maryaama ci peeñu la ko jaare woon ki yàlla yónni ne ko yusufa bul ragal a jël maryaama def ko sa soxna ndax ci kàttanu xel mu sell mi lay xaare xale dina jur doom ju góor ji ngay tudde yéesu turu yéesu di tekki musalkat yusufa déggal yàlla takk maryaama waaye tëddul ak moom ba yeesu judd